بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير فاعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki téléspectateur yu télévision Al Mouridiyyah TV ñi ngi fii ci jumaa ju mag ji gisal ngeen seen bopp mbooloo mi yitte ji nag du lenn rek la mooy ndigal loo xam ne Cheikh Seydil Mokhtar xalif général des mourides moo ko joxe mu jëm ci bis boo xam ne bisub ñaan la di bisub njàngum alxuraan mu woote ko fii ci jumaa ju mag ji bëgg fépp foo xam ne ab taalibe nekk na fa ci dëkk bi ñu daje fi. loolu nag moo waral tey mbedd yëpp bu ngeen ko xoolee gis ne dëkk bi wéttalu ko na lool ci jumaa ji ak li ko wër koo séen ñi ngi yor seen téere ñi yor seen basang ay jëwriñ ak kilifa yi ànd ak seeni dongo ak dongo daara yi ñëpp daje fii ci jumaa ji ngir fas yéene jàng alxuraan ni ko Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke digle tuubal suñu boroom jéggalu ko sàkku ci moom ay xéewal kon loolu la ñu bëgg ànd ak yéen léegi nii ci kanam dugg ci biir jumaa ji ngeen gis ni nga xam ne ne la dongoy taxawee ci ndigal loolu nga xam ne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke joxe na ko. inna ajala allahi idha jaa la yuaxxar لو كنتم تعلمون kon nag euh, gis ngeen ko fii ginnaaw boo xamante ni euh, tàbbi nañu ci biir jumaa ji muy barab boo xam ne fees na dell dell ak mbooloo ñu gis ne jumaa ji biir gi fi nga xam ne fa la ñuy jullee dafa fees waaye itam mboolem yokk yi nga xamante ni ñoo fi nekk muy ci soowu gànnaar ak saalum dañoo fees gis nañu itam ne fu mel ni barabu saa yu Mbacké ak li ko wër barabu cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké barabu cheikh Abdoul Khader ba ci barabu cheikh Mouhamadou Mourtala foofu yépp ay mbooloo ña nga fa juróom-ñetti waxtu nag bi mu jotee rek ba tegal tuuti ci la mbooloo mi tàmbali wut si jumaa ju mag ji mooy ndigal li nga xam ne cheikh Sidi Moukhtar Mbacké xalif général des Mourides joxe woon na ko tey jii ci. altine ji di juróom-ñaari fan ci weeru kor atum junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom ci ati gàddaay gi mu dëppook ñeenti fan ci weeru wut atum 2014 ndigal njàngum alxuraan mu yaatu ñu xëye ko yendoo ko ba tisbaar loolu mooy li nga xam ne gis nañ ko fii ci jumaa ju mag ji qaala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahaara na koo gis tey mi ngi yor ab jukki muy ay kaamilu alxuraan yu wuute di ay jukki yoo xamante ni tey ku ko doon lim doo ko mën ñëpp it amul kenn koo xam ne nekk nga ci loxoy neen ñeneen ñi ñu ngi tudd yàlla ñi yor seeni kurus ñi yor seeni xasida di jàng lépp ngir tàbbi ci li nga xam ne moom la Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke santaane woon mu ñu dellu ci suñu boroom tuubal ko jàng alxuraan baalonte àq maase ci def lépp loo xamante ni lu suñu boroom bëgg la te loolu ñu def ko ginnaaw julli mbaaw gi nga xamante ni defoon nañ ko rek ci bis boo ko jiitu mu doonoon dibéer ji Euh, ci biir euh, liggéey boobu ñu gis ne niñ ko sàkkoo woon sëriñ daara yi nga xam ne bi ñu xëyee ñoom ñëpp dañoo wutal ci jumaa ji kenn ku nekk ci ñoom it jiital say dongo ànd ak ñoom fexe ba liggéey bi Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke digle ñu defe ko ni nga xamante ni ñu la ko sàkkoo loolu sax daje nañu ak kenn ci ñoom muy eh, jàngalekatu alxuraan di sëriñ Ibrahima Diouf ma nga bàyyi ko bu boqoxatul mubaarakati waaw bi ma déggee ndigal suñu lamee dama ànd ak dongo yi ñëw fas yéene koo jëfee ne ko sëriñ bi bëggee waaw moo tax ñu ànd ak dongo yi su ba léegi di fas yéene jàng alxuraan bu baax a baax ngir ndigal la kii fi nekkal sëriñ Touba te di ko ñaan suñu borom yàggal ko fi te nangu liggéey bi baax a baax a baax a baax a baax. biñ dikkee boo gisee sax bi ñu yegg seeg si ñu mën leen na ñeem fii ngir bëgg mbir mi gën a sell la ma tas kaamil bi saa yu yeggee ñu daal di tàmbaliwaat beneen nga xamante ne kenn ku ne sa jukkee fi ñu la joxe moom man nga fa xame nga fa nga xam ne boo ko ubboon sax ni ko mën a waxal sa bopp te doo gis téere bi. bokk na itam ci li nga xam ne seetlu nañ ko ci biir ndigal loolu nga xam ne sëriñ bi joxe na ko mooy ne mbooloo mi diirub li nga xam ne ñu ngi jàng amul fenn foo xam ne am nañ fa itte fudul ci barabu jàngukaay yi. looloo waral sax njàng mi yaatu ba génn li nga xamante ni mooy jumaa ji yaatu ba àgg sax ci yeneen barab maanaam yokk yi ak fépp kilifa yi dañoo dugg ci biir mbooloo mi nga xam ni tey boo ñëwoon sax doo leen mën a xàmmee ni ki fii tey sax ci euh, yokk bi nga xam ne moo jàkkaarloo ak kër Cheikh Saliou Mbacke fii te gànnaar fekk nañ fa njabootu sëriñ Mouhamadou Fadilou Fall ñu ànd ñoom ñëpp ci ginnaaw euh, sëriñ Fallou ak Serigne Moustapha nekk ci liggéey bi di jàng mu alxuraan mu sell Baye Ibra ja di kenn ci dongo yi nga xam ne àndoon na ak ñoom leeral nañu nan la ñu doxalee seen wàll ci liggéey bi. waaye di dellu di santaat yàlla bu baax baax rek ndax euh, kër maam Cheikh Rahane Fall naka jëkk baatum ndigal rek la ñuy déglu baat bi nag moo nu fekk fa nu toogoon di ko déglu euh, sëriñ bi joxe ay xéewal yu tedd yoo xam ne yi rek ñu delluwaat ñun ñëpp delluwaat ci lislaam te ne moom dañu sàkkul nag loo xam ne yàlla na yàlla doolu ñu ko defal di ñaanal si Sidi Maxtaar yi sama borom yàlla yàggal ko fi lool ci dolli ak wéram ak jëwriñ yeeg sëñ Muntaxa ak ñoom ñëpp eh, di sant nag njaboot gi nga bokkal Kéwoulo tey jii mooy njabootu sëñ Modou Falilou Fall eh, nga xam ne moom naka jëkk eh, Cheikh Saliou Mbacke bi fi daan nekk fii la daan toog di déglu ndigal waxtu u déglu ndigal yi joxe ko kaamil bi nga gis tey jii ñu yore ko sëñ Fallou Fall jëwriñ ji moo ko jiite waaye dafa denanteeg sëñ Moussa Fall Falilou waaye mboolem ñi nga gis fii ñëpp ci gannaawam ay doomi sëñ Modou Aminta lañ loolu nag ak cant yàlla bu baax a baax kon bu sëñ Sidi Maxtaar joxee mais ñëw leen fii ci jumaa ji loolu tax ñu bàyyi ko Mbàkke ndax ndigal moom fa ndigal la ngay dem fekk ko fa loolu tax seen Modou Binta Fall na ko yëkk noonu la daan doxee te sun maam Cheikh Ibra Fall day wax ne seytaane boo bëggee ci moom fa mu toxoo rek fa ngay dem sanc fa fa mu toxoo nag mooy fa ndigal ndig gàntu ndigal fa toxoo kon boo bëggee nag wi ci uh, mucc seytaane da ngay dem yow foofa kon nga sanc fa su ko defee da nga mucc moom ci seytaane loolu moo tax sabab bi rek ñun ñëpp ñu jog ñëw nag di uh, toroxlu di sàkku ndimbal Eh, ci sunu sang bu tedd ba eh, xaadimul Moustapha na mun ko daa ñaanal rek nga xam ne moom yeggoon a diggante boo xam ne bi moom lépp ñaan suñu borom suñu borom may ko ko te jii du ñëw buuf fi di toroxlu di ñaan noonu ni mu waxee woon rek ci la nekk di sakku ndimbal rek sa borom dala fa nawetu jàmm ndoxum jàmm munu mën a barkeeloo munu mën a amee addiya loolu daal moo nu taxoon jóg eh, ñun ñëpp ñëw fii nag ci kanam sëriñ bi rek thumma inni a'lan لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ndigal lii euh, ñëpp jox nañ ko yitte muy kilifa yi di dongo yi di mag ñi di gone yi ñu seetlu itam taxawaay bu ràññeeku boo xamante ni gone yi am nañ ko kenn ku ci nekk ànd ak seeni sëriñ daara ñi ànd ak seeni jëwriñ ñu dikk am pësteef bu ràññeeku ci ndigal lii ànd ko ak ñi nga xamante ni ñooy mag ñi ba jumaa ji wet goo ci dem rekk fekk mu fees dell ba desul lenn mu am ñoo xam ne nag ràññee nañu seen teewaay ci biir loolu muy soxna yi nga xam ne yokk yi féete woon ak kër sëriñ Ibrahima Mbacke di kër sëriñ dàmbata ak yokk bi nga xam ne moo féete kër Cheikh Mouhamadou Fadilou ak beneen yokk bi jëm ci wàllu sow bi foofu yépp ay barabu jàngukaay la woon yoo xam ne jigéen ñi rek lañ ko jagleel muy ñoo xam ne nag at yu ne tàmbali ci ñi gën a mage ak ñi ci topp ba ci gone yi nga xam ne toll nañu sax ci di jàng ci daara yi tey ay soxna. dikk nañu teew ci liggéey boobu nga xam ne ñoom itam pastéef bu wér lañ ci wone maa lakum laa tarjuuna lillaahi waqaara wa qad xalaqakum atwaara bisu jàng alxuraan bu mel nii saa bu amee Cheikh Sidi Mokhtar dina fàttali ñi nga xamante ni ñooy bokki taalibe yi ñu mën a taxaw ci lépp luy tax jàngkat yi bég te sawar muy Pastef boo xam ne nag gis nañ ko lool ci bokki taalibe yi ndax du ndox mu sedd mu ñuy jëfandikoo wala kafe wala lépp loo xam ne xeeti xéewal la bi ñu tàmbali liggéey bi ba waxtu wi ñuy bàyyi dakkul seen saa kenn ku ci nekk dikkal boppam di ko indi wane ci itam yéene ba noppi itam am Pastefu di ko joxeel boppam mu doon loo xam ne lu sell la loolu bokk na ci li nga xam ne nemmeeku nañ ko ci liggéey boobu. تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا la demee woon ci fànn yépp ñu gis ñi nga xam ni itam ñi ngi yëkkati ay xasida ñi nga xamante ni dañuy siyaare ak ñi nga xam ne ñëpp ñëw nañu mu doon barab boo xam ne képp ku fi taxaw soo ko dàndee ci xibla yépp ak wet gu mu mën a doon di nga ràññeel sa bopp takku mbooloo mi di bis yoo xamante ne nag miineesul sax di ko gis ci lu mel nii mooy loo xam ne kon day firndeel ne ñëpp wuy si nañu ci ndigal li ñëpp itam taxaw nañ ci kenn ku nekk nu mu ko mënee fexe ne ba jëfee loolu nga xamante ni Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke moom la digle woon. rabitatul madaarisul xuraan bi nga xam ne nag ñoom la sëriñ bi féetale woon liggéey boobu itam jóg nañu ci ay diggante di ko nemmiku demal seen bopp ci fépp foo xamante ni fan la ñuy jàngee ci jumaa ji ak li ko wër ba gis ne ñëpp ñu ngi ci ndigal loolu. wallaahu anbatakum min al ardi nabaata ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ñu nekk ci nag ba bi nga xamante ni nodd nañ ci jumaa ji war a taxaw julli tisbaar gi foofee nag li ñépp daal lem jukki yi jublu ci julli gi ginnaaw bi ñu sëlmalee nag ñu daal jàng xatma bi muy ñaan gi fu waay mën a toll di wax amiin sëriñ Afia Bousso al moo ko doon jàng صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات وذكر الحكيم واجعل لنا حجة يوم الدين والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ñi ngi nuyu mbokk yépp di leen siyaare di leen balu xaq di leen balaq di ñaan suñu boroom mu boole ñu baal eh, gannaaw loolu di sant yàlla bu baax ci tawfiix gi ñu suñu boroom tawfiixale boole ñu ak kilifa gu mat kilifa goo xam ne waxtu wu nekk muy ittewoo mbiri jullit yi di waxtu nekk lépp loo xam ne laaj na ko rek mu taxawe ca xam ngeen ne jamono yii ñu toll jamono yépp sax la war ci ab jullit muy dellu ci boroomam di ko tuubal di ko jéggulu di ko mokk ci lépp loo xam ne mbéga a nga ca waaye rawatina nag suñu tolloo ci waxtu wii nga xam ne bokk na ci xéewal yi nga xam ne suñu borom baaxoo woon na di ñu ko xéewale te ñu di ko séentu te seegul muy am ndox sëriñ bi santaane woon nag fan yii ni ki démb ci dibeer ji ak tey jii ci altine ji jullit yi ñu maase ci dellu suñ dellu ci suñu borom tàmbalee ko ci liggéeyub démb ba muy salaatul istisqa bi loola kilifa yi ñu ngi ciy jotal ak cant bu baax ci mbooloo mi ni ñu wuyoo ci ndigalal sëriñ bi nga xam ne ci biir dëkk bi ak ci biti dëkk bi fu mu fi jàpp ne mbooloo yi taxawal nañ ko tey jiit ñëpp xam nañu ne bi bët setee rek fii ci jumaa ju mag ji ak ci biir réew mi sax ci barab yu baree bari moo xam ci kër sëriñ tubaay yi wala ci yeneen barab yi nga xam ne mbokki jullit ya fa nekk bi ñu déggee ndigalal sëriñ bi jàpp nañu ko dañ cee dal di maase bu dee fii ci Touba bi juróom-ñetti waxtu jotee rek la mbooloo mi tàmbalee ñëw daanaka bi fukki waxtu yi jot fekk na jumaa ji fees ba leneen ci barab yi ci dëkk bi dafa mujj ginnaaw ndigal li fii la woon waaye bi mu feesee ubbilu dañ yeneen jumaa yu bari ci dëkk bi ba mbooloo mi maase defe ko fa kon kilifa yi wax ne nag e, ñi ngi sant suñu borom ci wuyu gi mbooloo mi wuyu ci ndigalal sëriñ bi e, ñu jàpp ne taxawee nañu ko niñ bëgg ndax mbooloo boobu ba léegi alquran ji mi ngi maase foofi dem ñépp ngi maase ci jàngum alquran ak tuub ak jégglu ci defii nit wu pasteefu woo xam ne kilifa yi biñ dikkee tàbbi nañ ci biir mbooloo mi xool waaye fekkuñu kenn ci lu luñ ko war a fekk ñépp ci pasteef ak sellal lañ leen fekk ñuy ñaan nag suñu boroom mi nga xam ne gannaaw bu jaam ñi tuubee nangu ak njëgal ci moom la nekk yàlla na nangu te jéggale ci barkeb lépp loo xam ne ab jaam mas na ko caa tuubale tam nangul ko ca yàlla na suñu borom nangul kon ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barakatul qur'anil karim waaye barkeb seexul xadim mi nga xam ne mooy suñu yaakaar te joxe woon ndigal lii te jëfe ko suñu borom yàlla na rus ñoo ñii ba def nam daan def wàccee xéewal yu baawaan te naq nit ñi nag ci ak njub ba ñu bañati koo wàcc ba lii di ñu dal kilifa yi nee nañ ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm bëgg nag su jataay bii jeexee bu kili bu sëriñ bi ñaanee ba noppi ñu dem ci bitt ci yokk wi te ànd rek akuk dal ñi nga xam ne ñooy re wàllu xéewal yi ña ngi koy joxe ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci noonu nag la mbooloo mépp daal di jóg kenn ku ci nekk ñu dem ci yokk yi laata nag liggéey bi àgg bi ñu tolloo rek ci ñaan gi fekk na Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke yabal si ci jumaa ji ay xéewal yu yaatoo yaatoo yaatu yoo xam ne mboolem ñi nga xamante ni teewoon nañ fa barkeeru nañ ci muy góor ñi ak jigéen ñi loolu yëpp nag mu defee ko rek ci sant leen. ak njukkal leen ak gërëm leen ci ndigal yi nga xam ne joxe woon na ko te ñëpp maase ànd ci di ko def muy liggéey bu am solo boo xam ne bi mu ñëwee itam taxawu nañ ko tasaare ko ci mbooloo mépp ba képp koo xamante ne dikkoon nga te njàng mi indi la bi dem yóbbaale nga mbégte di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. ku ne xam na ne sëriñ bi li alxuraan di wax atamuru naasa bil birri wa tansawna anfusakum du ko dal bi muy digal dafa waxoon ne barab yi nga xam ne fii la ñuy defee njàng mi. Euh, nañu wut ay xéewal yóbbu fa kon su ko defee moom ci boppam it mu waajal lu ay xéewal yu baree baree bari te yaatu waaye daal li woor mooy xéewal yi moom bari na lool mbokki bi yi ci dëkk bi it euh, bañ ko déggee ñoom it wuyu nañ ci woote bi ndap yi ni nga ko gisee ba fii ñu taxaw oto yaa ngi dem di jëli di indi te it liñ ñu waxagun mooy li ëppagun ci mbooloo mi añ nañ waaye li fi desagun ci ndap bari na te am na yoo xam ne mi ngi ñëw ba tax na yaakaar nañ ne xéewal yi dana doy sëkk kon loolu li muy tegtale mooy donga yi bi ñu déggee ndigalal sëñ bi wuyu nañu sëriñ bi it moo ci jiitu nag ni mu ko diglee noonu la jiitoo ci xeewal yi yaakaar nañ ne loolu lay jiitoo ci lépp ba tax na kon wàll googu it ñu ngi ciy sant bu baax te di ko ñaanal yàgg ak wér ndax euh, am kilifa dafa am solo ku ne xam ne fii jamono toll ku am kilifa gu lay woo ci lii bëggal na la ndimbal bëggal na la tawféex bëggal na la yërmande kon loolu moo tax ñu ngi ciy sant bu baax di ko ñaanal fan wu gudd ak wér ba liggéeyu sëriñ Tuubaa bii nekk ci loxoom mu yóbbu ko fu kawe njort yëpp te ànd ko donga yëpp ci barkeb sëriñ bi قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا ci kaw loolu sax kilifa yi delluwaat nañu ñoom itam di sant sëriñ bi bu baax ci liggéey bi ni nga xamante ni lañ ko doxalee ak itam nag bi ñu tolloo ci ñëpp war a yeewiku ñu gis ne nañ ko tàmbalee woon ci juróom-ñetti waxtu yu tegal tuuti ba ginnaaw tisbaar fépp noonu lañ ko fa taxawee muy taxawaay boo xam ne bu am solo la. joxe nañu ndigalal sëriñ bi ba toll ci di àggale nii yàlla nañu ko suñu borom nangul ci barkeb sëriñ bi ni ko sëriñ bi diglee woon ba ndigal li jibee ba tey donga yaa ngi jóg ci fexe jottali kàddu sëriñ bi ànd ko ak yéen diggante bi yàggul waaye mel na ni. li ëpp ci biir réew mi ak bitim réew ñëpp dégg nañu ko ngir jàpp gi nga xam ne yéen ak seen mbokk yi nekk ci barabu xabaar yi jàpp nañ ko ci. Euh, démb ci suba ba léegi nga xam ne démb mooy bis bi njëkk ci ndigal li di salaatul istisqa euh, ci biir dëkk bi ak ci biti dëkk bi jàkka yi ak jumaa yi ak barab yi ñëpp ànd nañ ci te ku ne xam ne ne salaatul istisqa sunnatun mu akkadatun sunna su fàttaliku la soo xam ne waxtu wu jullit yi tolloo ci lu mel nii def ko lu yaakaaroo yaakaaru la. tey jii tamit mbooloo mi xëy ci njàngum alxuraan mi fii ci jumaa ju mag ji eh, ca juróom-ñetti waxtu ba leegi mi ngi fees dell bi ñu dikkee fekk nañ fi waa muxaddamatul xidma ci njiital Serigne Afia Bousso nga xam ne saabu bu ndigal lu mel nii dikkee ñoom taxawaay bi ñuy taxaw ci jumaa ji danañu ko waajal ba mbooloo mi dikkee fekk waajtaay yëpp mat kon ca juróom-ñetti waxtu mi jot fekk na waajtaayu jumaa ji mat mbooloo mi tàmbali di ñëw ni nga xam ne rabita bi noonu la jotlee woon ndigalal sëriñ bi jotal ko ci biir dëkk bi jotal ko it ci mbokk yi nga xam ne ñooy mbokk yi ne ci biir réew mi yëpp ba ci bitim réew loolu it mbooloo mi wuyu si nañ bu dee Touba dañu ne woon ndigal li day tàmbalee ci jumaa ji daanaka bi fukki waxtu yi jot fekk na jumaa ji fees del ba mujj ñu ubbilu sax yeneen barab ci biir dëkk bi yoo xam ne bi jumaa ji feesee eh, barab yu baree bari moo xam lu mel ne Daarul Minan lu mel ne Kër Sëñ Sohaybu lu mel ne Gerte barab yu baree bari rek mujj nañ ubbi seeni jumaa ñoom mbooloo mi dem ca fa lay xam ci suba ba tisbaar ñi ngi jàng alquran bi ñu jàngee ba ñu nodd àggale nañu kaamil yi ci jumaa ju mag ji bi ñu sëlmalee euh, sëriñ Afiya bu sa al imam jàng na xatmu bi ci teewaayu kilifa yi ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu nangu liggéey bi euh, te defal jullit yëpp ak xetli ko ak ndimbal ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee. kon ci tënk ci turu rabita bi ak ay kilifaam te sëriñ Basiru nekk nii moom sëriñ Habibu ak mboolem kilifa yi ci des te nekk ci biir liggéey bi ñu ngi jotalaat ak cant mbokk yëpp. ndax ndigal li sëriñ bi waxoon ne nañ leen ko jottali euh, falilaahi alhamdu dégg nañ ko te wuyu nañ ci biñ ko déggee te wuyu ci nag santees na ba fu sant yem ndax euh, loolu rek lañ bëggoon jotal ndigal la sëriñ bi mbokk yi dégg ko wuyu si kon sant nañ leen ci wuyu si gi li ci des lépp nag ñu ànd tàllal suñu loxo suñu borom ne ko jaam ñi kat def nañu li ñu man li ci des nag yow lañ ci yaakaar kon yàlla na def la ñuy lu kawe la ñuy yaakaar ci moom sax mooy def ndoxum jàmm ak i xéewal ndax xéewal yi soxla ndox lu tuuti la ca lépp loo xam ne luy jëriñ ab jullit la rek toroxlu nañ suñu borom ñaan ko mu defal ñu ko ci barkeb alxuraan ci barkeb sëriñ bi wa qaalu laa tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwaacan wala yaguuth loolu nga xam ne dégg nañu sëriñ Xaari Jaxate wax ko muy bi nga xamante ne liggéey bi àgg na te am yeneen barab ci dëkk bi yoo xam ne joxe nañ ci ndigal jot nañoo agsi fii ci fi nga xamante ni mooy daarul minam fekk leen ñoom itam ci njàng moomu wala yaxuuta wa yaxuuqa wa nasra wa qad adallu kathiira asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu leen di nuyu di jël kàddu yi ci ndigalul sëñ Modou Abdoulaye imaamu jumaa ji moom Cheikh Mamadou Moussa moom Cheikh Mamadou Bassir ñu jël kàddu gi ci ndigalam ci teewaayub Cheikh Mountakha Darou Tansil bokk ci imaam yi ak teewaalu teewaayu Serigne Touba Sourang jiite daara ji ak kilifa yi fi teew yëpp sëñ maam Ba sëñ maam Balla Mbacke imaam. teew na moom it ak kilifa yi teew yëpp ak bokki taalibe bi nu ànd liggéey bi ci ndigalu Cheikh Sidi Mokhtar yal na fi yàgg lool ndigal ni ñuy jot ko ci sunu kilifa Cheikh Mouhamadou Mountakha moo tax bi ñu xëyee rek lañu daldi teew fii ci juróom-ñeenti waxtu boobaak léegi noo ngi jàng naa ñu bari sa dañoo dem fee ca jumaa ji niñ ko waxe waaye teewul daara yi fii teew jàng nañu juróom-ñett fukki kaamil ak juróom-ñeent fukki kaamil ak juróom fii ci barab bi noo ngi ñaan suñu borom mu nangu ko te gërëm lépp te it rafet nañ ci njott ndax ci ndigal lañ ko def te bokk na ci sattu nangu jëf ak ñaan jëf ko ci ndigal kon noo ngi ciy am yaakaar bu baax alxuraan moom mooy lépp sëriñ bi bëggal nu ndimbal bëggal nu tawfiq bëggal nu ak dolli ko ak mucc ak suñ boroom dolli noo yërëm rek moo tax mu diggal nu ko sëriñ bi wax ne kitaabun bihi narju minallahi rahmatan wa naan bihi dunya wa uxra min al karbi ñu ne sëriñ Tuubaa ko bind alxuraanu karim mooy téere bi nga xam ne ci laa yaakaare jërma ni suñu borom adduna ak alaaxira mucc ci bépp njàqare kon loolu moo tax sëñ bi jox nu ndigal xam ne alxuraan mooy balluwaay bi nga xam ne ah, moom digle tere rek la ak ñaan suñu borom buñ ci delloo fàttali ko suñu borom rek mu fàttali nu ko mu fàttali ko nu ci ay yërmandeem ak i xéewalam ana suñu borom nangu ñaan yëpp. ci daraje kilifa yu tedd yu fi teew ak yi ñu jox ndigal li te yàggal suñuy kilifa ci sunu kanam waaw te may nu ndimbalu nu topp seen i ndigal ndax kon faaw nu jëriñ te wattandiku seen i tere te góorgóorlu bu baax ci jàmm yàlla wattandiku ak tere jëf wéy ci ndigal loolu rek mooy ndigal yi nu sëñ bi digal nu fàttaliku ko xam ne alxuraan mooy lépp kitaabun karimun min karimin mu karimin ku fi bihil aada wa samba shirka alxuraan mooy lu tedd lu jóge ci suñu borom mu tedd jaar ci sang bu tedd ba nu war koo fonk di ko jëfe waaw loolu rek mooy ndigal li sëñ bi dina fàttalikuwaat fàttaliwaat li nu war nañ ci góorgóorlu bu baax buñ fi jógee itam muy ci ndigal wattandiku tere te ñaan suñu borom rek ci xéwalam yi dana suñu borom wàcce yërmande yëpp ak xéwal yëpp ci dara ki dara jëy sang bu tedd bi ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا daaw daaru minam itam suñuy reporter demaloon nañ leen ci péncum Serigne bu Mbacké fekk leen ñoom itam ci ndigal loolu nga xamante ni mbooy njàngum alxuraan mi ñoo ngi fii ci barabu tedd bi ci jàkka yi Cheikh Souhaïbou radiyallahu anhu doon fi jàng alxuraan ni ngeen ko xamee muy ndigal lu bàyyi ko ci Cheikh Sidi Mokhtar xalif général du Mouride muy bis boo xam ne dafa santaane ñu jàng alquran ñaan te ndigal loolu nag muy santaane boo xam ne bi yëmale ko ci murid yi rek waaye ci mboolem jullit daj na ci àddina bépp def nañ ci appel boo xam ne bi àddina bépp yëng nañ ko dégg nañ ko te ji dañoo yendoo jàng alquran ak xasida ak xeet tudd yàlla waay man ak saraxe ak tuub ngir ñaan suñu borom mu sotti lu ay xiwal ci réew mi ak réewu jullit yëpp ndax ni ko ni ngeen ko xamee Serigne Touba radiyallahu anhu noonu moo ko waxee ci alxuraan di ko tagg dafa xam ne kitaabun bihi narjoo minallaahi rahmatan wa alxuraan mooy téere boo xam ne ci la ñuy amee yërmande àddina ak yërmande àllaaxira ci la ñuy amee te dangay àddina ak te dangay àllaaxira moo tax kon saa bu ñu jaaxee rek bu ñuy dellu ci suñu borom ci alxuraan la ñuy jël ak ci xasaayid sëñ bi tawasul di ñaan suñu borom mu wàcceel nu yërmande tey nag yaakaar naa ne dafa mel ni kon ñaan gi nangu na ndax boo ko seetee nit ñi ni ñu ko nangoo wala mépp génn nañ dem ci jumaa yi ak jàkka yi fees ko dell di fa jàng alxuraan ñii def kati lu baax itam ñu ngi def seen ñu def seen i coobare def lu baax joxe ay xiwal diggante xeeti ñam ak yu ñuy naan ak yëpp doy na sëkk fa kalan suñu borom itam wàcce na yërmande ba nga xam ne yàlla eh, dogal na naaj wi tàngut dafa niis ndax boo ña dem ci pencu mag ma la ñoo xam ne dala ci jumaa ja ba ca eh, ba ca armeel ya lépp aw nit la te bu naaj wi tàngoon loolu duñ ko man kon dañuy daal xam ne kon suñu borom nangu na ñaan gi ndax wàcce na yërmande te yërmande ji li jiitu mooy e, niis wi mu niis ba nga xam ni mbooloom mi mën nañ toog ci biti jàng alxuraan ni ñu ko bëggee ak xasida ak xeet tudd yàlla waaye man moom la ñu yendoo suba ba tisbaar jot wala dañuy ñaan lépp suñu borom nangu nangu ko sotti xiiwal ak yërmande ci réew yi jullit yi fépp fu jullit nekk suñu borom xot sa sotti ko xiiwal ak naataan ak yërmande fépp foo xamante ne euh, ab julit nekk na fa te nekk fa awtiise tam suñu borom tegg ka tiis woowee ci dara yi alxuraan jooju ñu doon jàng ak xasida yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu uxriqu fa udxilu naaran falam yajidu lahum min duni llahi ansaara وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا naka noonu sax fu mel ni Guédé ak yeneen barab jàng nañ fa loolu lépp rek di firndeel ne jumaa ju mag ji fees na ba yeneen barab tàbbi ci jëm ci ndigal li nga xam ne Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke joxe woon na ko gannaaw boo xamante ni nag jëfe nañ ko ñépp di ñaan te di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا بسم الله فواي تولو منا وخ آمين آمين آمين يا رب العالمين آمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa hilma faghfir lillazina taabu wattaba'u sabilaka waqihim azaabal jahim rabbana wa adkhilhum jannata adnin allati wa'adtahum man salaha min abaa'ihim wa azwaajihim wa dhurriyyaatihim innaka antal aziizul hakiim وقهم السيئات ومن تق سيئات ومن يسن فقدر ذلك الفوز العظيم اهد جميعنا الصراط المستقيم وبصحيح كلنا بلا سقيم لك خطاب يا قريب يا مجيب يا من بلا سمن خير وجيب habli wa lillazina qad ta'allahu bi hudan bi khayrin min Allah iyyaka na'budu wa nasta'inu fa innaka al-ma'budu wal-mu'in dalaltana bika alayka ya raqib ya man bi an'amta alayhi wa kullana khayr ya dhas siratil mustaqim hablana hudan bi akhbirna man qablana waltuf bina wa khawina wa kullana wa hablana husnal khitami rabbana وصلي على النبي وسلم واقلب عجل كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil aalamiin barkab Sëriñ Tuubaa jërëjëf اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً kon mbokk yi lii mooy li nga xam ne moom la leen jëlale woon ci jumaa ju mag ji dégg ngeen léegi sëriñ Haafiya Buso imaam jàng xatma bi ginnaaw boo xamante ni mbooloo mépp xëy nañ ci jumaa ji muy biir jumaa yi ci jëmmi boppam ak yokk yëpp ba li ko wër sax ngir mën a jëfe ndigal li Cheikh side Muxtaar joxe woon muy njàngom alxuraan moo xam ne dañ ko xëyee ci suba gi bi ñuy àggal na tasanteeg na Cheikh side Muxtaar ni mu ko baaxoo def ci bis yu nii indi ay xéewal yu takku yu yaatu oto bi wàccee ko ñu di ko séddale bi sëriñ bi jàngee xat mi ba noppi joxe ndigal ngir bokki taal bi yëpp mën cee barkeelu soog a dellu ci kër yi kon nag muy ndigal li nga xam ne moo amoon fii ci jumaay Touba altine juróom-ñaari fan ci weeru Shawal yéen ñëpp ngeen gis ko dëppoo ñeenti fan ci weeru wut atum 2014 di bis boo xam ne bisub ñaan la bisub njàngum alxuraan ci jumaa ju mag ji fii ci Touba lii mooy li nga xam ne almouridiya moom la leen jëlee woon ci jumaay Touba di leen sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.